ñoo ngi leen de dalal seen chaîne YouTube Mas Agri di waxtaan ak yéen ci jataay yu xam-xam bi tudd yeete ñoo ngi ànd seen émission bi ak Assol bi nga xam ni mooy seen partenaire leader bi indi engrais yeeg engrais granulé engrais foliere yu baax yi ci réew mi maa ngi tudd Mohamed Seck nekk ingénieur agronome di liggéey fii ci entreprise bu tudd Mas Agri tey nag dañu waxtaanee benn tem bu bees bu xaw technique wante ñu ngi leen di ñaan rek genn euh, taaxirlu boo ko defee dinañ jéem a faram-fàccee ci wolof nu mu gën a leere tey nag dañuy waxtaanee jëflante bi am diggante garab gi ak suuf si mu am benn euh, jëflante ju tudd capacité d'échange cationique mooy kàttan bi nga xam ne am nañ ko ci diggante jëflante boobu ci suuf su ne moom nag tey leen bëgg waxtaanee. xam ngeen nag E, ferñeent yi ne ci suuf si te garab gi di ko jëriñoo moom sungu demee ba nga xam ni jaxasoo ak ndox day soppeeku soppeeku boobu nag tubaab da koy woowee ion tey nag ion yooyu dafa am xeetu ion bu ñu woowee cation moom moo waral waxtaan wi cation boobu nag moom bokk na ci li nuy xayma dooley suuf bu ko defee lii nga xam ne mooy capacité de d'échange cationique mooy saytu bi nga xam ne dinañ ko ci saytu pour xam suuf soosu ban doole la am ngir jëlee ferñent yi ci suuf si di ko bàyyi mu jëm ca garab gi ci misaal. kàttan googu nag nga xam ne moom la ñuy natt li fekk mi ngi gën a jëm kaw ñuy xam ni ñu ngi jóge ci suufu joor jëm ci suufu ban. lim nuy xamal tamit mooy suuf la soo xam ni dina téye ndox te li muy bàyyi maanaam ferñeent yi rot yombewul noonu kàttan googu nag nekk na kàttan goo xam ni dina yàgg ànd ak suuf si mu ne du loo xam ni day gaaw a soppi ko ndax ferñeent la yoo xam ni ñu ngi jóge ci ban bi ci suuf si ak xeetu tos yi nga xam ne moom la àndal maanaam matière organique wante tamit mu ngi ànd ak loolu ñu jàngoon fan yi ci ñu weesu ci épisode yële ñu ko doon woowee PS maanaam suuf si ni mu lewatee wala ni mu wexe bu ko defee xam capacité boobu noonu am na njëriñ loolu ndax suñ ko xamee ci la ñuy mën a natt suuf si ñàkk kàttan bi muy ñàkk kàttan ci ferñeent boobu di calcium potassium wala magnésium tey yooyu ngeen xam ni waxtaanee woon nañ ko ci épisode yee jàll bu ko defee suñu xamee perte boobu muy man muy am dinañ mën a xam nag léegi lan lañ war a indi ci euh, euh, tos pour yëkkatiwaat suuf si wala def lu nu woowee cholage maanaam pour remplacer xeetum calcium boobu nekk ci suuf si am capacité d'échange cationique boobu tamit dina am njeexital tamit ci ñu xam nan la ñuy gérer ñun sunu fertilisation maanaam engrais yi nga xam ne moom la ñuy dugal ndaxam engrais bi day bare potasse wala day bare magnésium ndax suuf nag dafa am ay équilibre yoo xam ne ñu ngi ci maanaam diggu doomu goo xam ne da ci ne moo waral su fekkee yenn suuf yi. Euh, dafa ñàkk benn ci ferñeent yi mën na am njeexital yeneen ferñeent yu fa newoon maanaam soo xoolee ci suuf yi nga xam ni dafa am calcaire soo seetloo zone du ñaay beeg yooyu noonu boobu euh, foofu suuf soosu day ñàkk potassium suuf yi nga xam ne nag potassium yi dafa bare day indi tamit suuf soosu di ñàkk magnésium loolu donc am lu nekk lu am importance te mat a xam. capacité d'échange cationique maanaam kattan googu suuf si di am ngir bàyyi ferñeent yi ñu jëm ci gàncax gi kooku nag ci laboratoire nga koy mën a saytoo bu ko defee ki nga xam ni moo lay defal étude bi dina ñëw def prélèvement bi tibb ci suuf si def analyse bi sol bi ba pare saytul la ko firil la ko interpréter la ko ci loolu nag di nga mën a am idée maanaam xel mu leer ci lan. yan décision nga war a jël nan nga war a organiser woo ngir jëmale sa liggéey kanam fii nag la ñuy yem ci waxtaan bi wante nan ko bàyyi xel ndax lu am njëriñ la te ci émission yi ne sunu kanam incha allah di ngeen xam lii ñuy waxtaan yi yëpp fan la ñuy jëriñee ci sunub liggéey incha allah jërë ngeen jëf.